mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés colos bi man di topp mboolem sunuy programme te lépp lalu ci jàmm. syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nuyu nañ ñep ziar nañ leen ñu jiitale ci nuyoo bi serigne muntaha mu Cheikh Ahmadul bashir di ko ñaanal yalla anu wër ak tawfiq non anu lañu ñu nuyoo kilifa diina ji yëpp di nuyu serigne Cheikh mu serigne ali di ko ñaanal yalla yalla sàmm ko ba mu naan liggéeyal mamam mu ko ñam ñu and ko ak mom mbokk yi ñu ngi fii ci kër Soxna su ci ñi nga xam ni bokk ci organisation ci màggal gi waaye féete woon nag ci wàllu press bi réseau DTL division triangle de lumière daara ji tool bi liggéey bi ci seen site bi nga xam mooy Jant bi FM mi ngi lëkkalook rajo bi Jant bi FM fii ci Touba 95 point 2 mi ngi lëkkaloog. Thiéniere euh, FM ci dakaar 88 point 6 mu ngi lëkkaloog tamit Lergui fam ci Louga 94 point 6 muy réseau DTL kon dañuy jox euh, sëñ safaa joxaane mu nuyoo bu nuyoo par incha allah ñu di ñëw ci laaj yi nga xam moom lañ ko bëgg a laaj sëñ Moustapha yaa ngi ci jant bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ñu ngi ziar mbokk taalibe yëpp tey nuyu téléspectateur. ñi nga xam ne ñooy topp réseau DTL yëpp euh, di fas yéene rek leeral liggéey bi nga xam ne euh, sous commission presse euh, màggal dañ koy liggéey ci comité bi. waaw jërëjëf suñu soix ci nuyoo bu am solo boobu comme ni nga ko waxee rek ñun ñooy commission bi nga xam ñoo yar presse bi te xam nañu presse lu am solo la rawatina ci xew-xew yu mel nii ndax nit ñi buñ ko yëgee wala ñu mën cee xam dara ci ñoom lañ ko xamee. ñoom ñi nga xam nag ñoom presse bi di ñëw fii ñoom ñi nga xam ni daanaka mën naa ni ñëpp ñoom la ñuy aju kon dañ ko jox incha allah mu wax ñu ñoom naka la ñu organisé woo ngir mën a amal màggal gi ci jàmm ak salaam ak presse bi nga xam ñoom lañ ko seq Cheikh Moussa. waaw jërëjëf liggéeyam nag moom li nga xam ne moom la ko mooy fexe rek ba journaliste lii di màggal gi maanaam màggal gi di màggal Touba. fexe ba journaliste yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci biti ñu fexe koo yëg ba ñëw couvrir ko xam ne dina am une portée nationale ak internationale liñ siy liggéey nag mooy dañuy fexe ba weer wala ñaari weer yi des ci màggal gi ñu informer presse bi yëpp envoyé leen ay mail def leen ay communiqué nga xam ne ñoom ñëpp dañ koy bàyyi xel ngir mën a ku si bëgg couvrir événement bi rek mëna inscrire ci plateforme bi nga xam wajal malam nañ ko manam site internet bi nga xam wajal nañ ko ngir ku si inscrire rek so ñëwee ñu jombal sa liggéey mëna yomb ci naka ci so ñëwee ñu jox la ay badge yo xam ne di nga mëna am accès ci barab boo mënti dem rek di nga mëna am accès ngir def sa liggéey duma waré lool nak lool nak waaw euh, kon rek manam journaliste su ñëwee rek ba inscrire ci plateforme bi dañ leen jox ay badge Euh, yoo xam ne dañuy mën a couvrir euh, événement bi ren nag yàlla dogal jot nañ plus de 1700 demandes de badge séddale ko ci plus de 300 organes nga xam ne loolu euh, lu lu yaatu la lu bëri la nga xam ne mel na ni presse bi intéresso na maanaam am na intérêt ci ci ci ci couverture màggal gi ginnaaw loolu nag dañuy def beneen liggéey ci ginnaaw nga xam ne suñ jotee demande yi dañ koy traité xool ko saytu ko euh, nga xam ne ginnaaw gi jot nañoo séddale plus de 500 badge yoo xam ne euh, ay organes dañ ko séddale ngir ñoom ñu mën a mën a couvrir euh, événement bi waaw. noonu daal liggéey ci tënk daal noonu la liggéey bi liggéey bi demee. waaw ah, ba tey Cheikh Moussa leeral nga ne di ngeen def ay communiqué. Mm-hmm. def euh, ay ay ay email di ko yónnee ñi nga xam ñooy presse bi. Mm-hmm. Ah, ñi nga xam dañ nekk ci barab yoo xam xëy na ñoom du ñu du njëkkoon ko communiqué yi. ñoom buñ ñëwee nag ngeen di jëflante ak waaw ñoom nag euh, chaque année dafay am euh, ñu si bëri dañuy ñëw ne ñoom jotuñu communiqué wala jotuñu email waaye ñoom it dañuy fexe rek. jël seen i email nga xam ne prochaine édition yi ñoom dinañ mën a dinañ mën a bokk waaye communiqué bi itam day day yaatu maanaam ay communiqué de presse lañ koy def loolu ñu ko dul yëg xëy na du du bëri waaw ay communiqué de presse la nga xam ne bouche à bi sax nga xam ne ci presse bi ñoom seen biir dañuy waxante dafay yaatu ba nga xam ne ñu si ëpp en tout cas nañ jot information bi que ne am na ay accréditation yu ñu ubbi ngir presse bi mën a mën a mën a mën a waajal événement bi waaw. waaw su daal noonu lañ noonu lañ koy noonu lañ koy kiwee waaye ñi nga xam ne jot ñoo ko am na comme ni ma ko waxee suñu ñëwee dañuy jël seen email nga xam ne édition yi ngi ñëw dañu leen envoyé mail yi comme ça ñu mën ko bàyyi xel euh, ba gën a leeral nga seen diggante ak presse bi li xam ne noonu ngeen doxalee comme macha lu leer la da ngeen def ay ay ay email envoyé ko def ay communiqué. Mm. ku ko yëgutoon bu ñu da ngeen jëflante ak moom. Mm. am beneen yoon du am benn problème. Mm. yéen tamit liggéey bi tamit jëmb da ngeen ci am ay ay jafe-jafe. waaw yéen yooyu yéen ngeen ciy mën a waaw euh, liggéey comme liggéey boo gis rek am na ay quelques jafe rek ñu suñu jafe-jafe bi nga xam ne xëy na moo gën a moo gën a euh, kii maanaam yéen léeg-léeg journalistes yi xëy na duñ comprendre plateforme bi nga xam ne. outil outil informatique la xëy na yaatoogul noonu pour def demande yi soo soo nit ñi suñu ins maanaam journal suñu inscrit ci kii bi plateforme bi dañ am ay jafe-jafe yooyu nag fexe nañ ba bàyyi ay numéro yoo xam ne jafe-jafe bu ñu si am rek ñoom dañuy woo ngir ñu dimbali leen si waaw loolu daal mooy nekk jafe bi nga xam ne moo moo mooy ñëwaat su bëri waaye à loolu daal xëy na euh, hébergement waaye hébergement itam dañ leen di bàyyi ay numéro yoo xam ne dañ koy mën a dañ leen di mën a jokk ngir loolu mën a mën a mën a mën a jàppandi waaw dinañ seen tamit comme carte yi nga xam mu ngeen a joxe buñ ne ci cérémonie officielle dafa mel ne dañ koy soppiwaat joxwaat yeneen loolu tamit lan moo ko waral. cérémonie officielle moom euh, comme ni mu bindoo moom itam dafa dafa tënku nga xam ne euh, fi muy amee dafa dafa dafa ndaw loolu te presse bi comme ni ma ko waxee léegi dañoo dañoo bëri xëy na ñëpp duñu mën a am accès euh, ci ci ca fa muy amee maanaam ca bâche ba. waaye itam fexe nañ ba waajal ay béréb yoo nga xam ne ak ay signal yu nga xam ne presque boo bu am rek ñoom dinañ ko mën a jëlaat ngir mën koo diffuser. wala béréb yoo xam ne yii di rajo yi dañ mën a am ci euh, prise euh, audiovisuelle waaw waaw fexe nañ daal ba organe bu si nekk rek dina mën a gis waaye lépp ñëpp moom duñu mën a am accès ci ci ca ca salle ba waaw. kon jërëjëf sëñ Sa loolu leer na kon ñu ngi lay sant baax di la gërëm ci yaatal ak yombal gi yan kàddu ngay tàggoo waaw di sant rek di ñaan suñu borom may ñu màggalu jàmm ànd ak xewal yu yaatoo yaatu yaatu dañu fekk ko ay déwéni déwén déwén incha allah ci barke borom Tuubaa jërëjëf waaw jërëjëf euh, sëñ Sa Joxaane ñu ngi koy sant baax di gërëm ci ci yaatal gi euh, di ko ñaan yàlla yàlla defal leen ndam defal leen tawfeex ndax liggéey bu metti la ndax bi bëgg jëflante ak moom nag yàlla na yàlla yombalal mooy lépp loolu ci ngeen mën a dindi jafe-jafe yi xëy na jafe-jafe mënul ñàkk nag waaye bu dee amit bu dee amit muy néew daal kon ñu leen sant baax leen gërëm euh, seen euh, sit bi mooy jant bi TV moo woon fii ci kër Soxna Asi ci comité bi nga xam ñoo yor wàll presse bi ci waxukaay bi seen bokk maam Cheikh ci caméra bi euh, Serigne Moustapha sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.